ñu xëyee noonu lañ koy defee dañuy faral di am yenn ci këratu yéenekaay yi ci biir réew mi ak ci biti réew am nañ fii di standard newspaper Foroyaa am fii di Point yéenekaay yu biti réew mi am nañ fi Vox Populi am fi site quotidien am fi l'observateur ak euh, enquête euh, bu ci nekk xëy na bindu lu am solo ci xar-xaram gi su ko defee rek ñu xool euh, nuñ koy dooree muy bay si séewum tàng dañ koy dooree ak réew mi muy di standard newspaper xëy na bindu lu solo ci xar-xaram gi su ko defee rek ñu xool xët wu njëkk bu ñu jaaraay si la jox mooy assemblée muy national assemblée bi muy pencum ndawi réew mi am na ku leen ñaax kooku nag di ab am na ku leen ñaax kooku nag di ab. bañkat ci lu jëm rek ci wàllu migration muy migration activiste di Yaaya Sonko moom mu nekk nag sa jamaan euh, sa jamaan yi euh, daal dina nag euh, addu ne National Assembly bi dañu war a rek xool li nga xam ne mooy deal bi nga xam ne pencum ndawi ñii di nguur gi am nañ ko ak Spain ci lu jëm ci migration wàllu mangaan ci ñu dool jëm ko rek saytu maanaam scrutinise ko pour xam rek lan moo ci rekk daal di wund moom loolu la daal di rek sàkku ñu wax ci leneen nguur ci yeneen leeral ci rek ab explanatory note boo xam ne ñoom joxe nañ ko muy euh, benn mbir moo xam ne dañ ko génne ngir di ci leeral yenn yi nga xam ne def nañ ko wala génn nañ ko ci euh, draft constitution bu 2024 waaye bokk nag ci lu jëm ci leadership chapter bi nga xam ne nag des ko génne ba mu rek daal di jur coow nag ñoom daal di nañu ci indi ay leeral ñu wax ci leneen euh, Saudi Arabia nag ñoom daal di nañu waxtaan ak réewum Gambie ak ñeneen ci lu jëm rek ci la ñu def ba xeex bi nga xam ne nag wala fitna yi ñu teg ca réewum Gaza ñu gis ne daal dina euh, dakk euh, loolu nag euh, daal dinañ ci waxtaan bokk na ci waxtaan téléphone boo xam ne prince bu nekk foofee ca Arabie Saoudi def na ko séq ko docteur Mamadou Tangara ak ay naataangoom ci lu jëm rek ci wàllu woowi ñu wax ci leneen ci GTSC euh, dañ rek daal di euh, teg loxo foofu nag euh, kenn ci ab koo xam ne passenger la boo xam ne rek dafa yoroon ab bluetooth boo xam ne foofii la def li nga xam ne moo di ab cinébar lu toll rek ci téeméeri per ak nangam yoo xam ne rek ci xeetu drogue la bés tuddee rek gaaw-gaaw boobu la fa dugal jàpp nañ ko nag ba jëbbal ko nag kilifa yi ñu wax ci leneen dañu tëj sax boobu yéenekaay di standard ubbi Forea moom it xëy na bindu am solo ci xar xaram ngi bokk na rek ci euh, ay Gambiens yoo xam ne wala juróomi Gambiens soo xam ne ay migrants leen yu daal di takk ca euh, Morocco waaye nag des leen sax daal di teg loxo euh, ci réew moom moomee di Morocco ñu ngi leen rek daal di teg loxo jamono jile bu ñu sukkandikoo ci nikaay bi ñu waxaat ci leen jaawel général manager moom nag daal ne indi ay seede maanaam testify ci lu jëm rek ci joint committee bi nga xam ne rek mu ngi luñuti lu jëm rek ci coowal fuel bi nga xam ne rek mi ngi lëmbe yooyu jamono jile moom nag daal na dem yóbbu ay CDM ñu wax ci leneen nguur gi daal dina ñu leen ñaax ngir rek ñu daal di amal ab tere maanaam rek lii di embargo ci lu jëm rek ci ci kii yes rek di dugal ci réew mi maanaam yes di jéggaani muy import loolu nag daal na am ku leen rek ñaax ci loole ngir ñu daal di ci dëkk ab tere ñu wax ci leen dañuy tëj Foroyaa ubbi point moom it xëy na bindu lu am solo ñu daal di ñëw ci rek réewum Gambie nag international lawyer na rek nekk ci loya bi eh, di Samba Fall daal ñu xam ne lu jëm rek ci wàllu ngir Euh, topp wala yóbbu yoon ñenn ñu ñuy tuumaal ci rek euh, ay ne ay jonglas la loolu dafa des rek ci euh, réewum Gambia ndax nag ci ñoom lay des ngir ñu daal di koy matal ñu wax ci leneen point yóbbu ñu ba Sénégal di ñu xamal ne ñi élimaanu jëwri ñi di Ousmane Sonko dafa tere ñuy jëfandikoo li nga xam ne mooy ay télévision ci office yi loolu la daal di rek wax dafa baan TV ngir rek ñuy seetaan ci barabu liggéeyukaay yi moom Ousmane Sonko ñu waxaat ci leneen Gambia ak.

saudi seen foreign ministers yi daal dinañu amal li nga xam ne rek moo di ab discussion ci lu jëm rek ci euh, wàllu li nga xam ne moo di Palestine ak itam fitna yi nga xam ne ma ngi fay xew nes la ñu war a mën a def ba gis ne indi nañ euh, saafara euh, ci wàll woowee Amadou yéenekaay réew mi tey lañu xëyee ñu dem ca réewum Sénégal jaaraay jox ñu Vox Populi mu xëy bind lu am solo moom it ci xar-xaram mi ngi bokk na nag ca lafa doon xew démb ci lu jëmoon rek ci ab boo xam ne wala projet de loi bu Bassirou fay Faye yóbbu woon ca pencum ndawi réew ma euh, muy rek ngir ñu daal di eh, daaneel wala eh, tas ñaari institution yoo xam ne eh, ñu nga ca réew ma foofee loolu yi nag ci biir téeméeri député ak juróom-benn fukk ak ñett juróom-ñett fukk ak ñett yi ñoom ñoo wax déedéet àndu ñi ci juróom-ñett fukk yi ñoo ci ànd kon nag loi boobu mujjul daal di jàll waaye nag ci loolu itam nag ki nga xam ne mooy majorité leader bu National Assembly bu Sénégal di Abdou Mbow moom nag daal na xam ne ne dafay màbbal nguurug Ousmane Sonko gi maanaam dina yóbbu benn motion de censure boo xam ne dina ko yóbbu foofee euh, ci National Assembly bi euh, su ko tey jilee la wax ci talaata ji su ko fa yóbbee nag lu mu ci jublu mooy ñu màbbal li nga xam ne mooy nguurug Ousmane Sonko gi ay ay ministre am bu loolu jàllee euh, lu muy wane mooy Ousmane Sonko dootul nekkati prime ministre ministre am itam ñoom ñëpp kenn doo ci nekkati ministre dañuy format government gouvernement bu bees moom nag ci li mu joxe bokk na ci ne Ousmane Sonko dafay wane tëleem ci ne liñ ko dénk mënu ko ñaareel bi itam ñàkk teew bi nga xam ne itam ñàkk na ko teew ca National Assembly bi ak doyadal euh, gim leen daal di euh, doyadal loolu itam bokk na ci ci wàll loolu nag Macky Sall ba fu mu nekk moo xam France wala Maroc daal dina bind ab bataaxal di xamle daal ne Benno Bokk Yaakaar def na lu ne ànd bi yàgg na lu ne def nañ ko léegi dafa jot nag euh, ñu daal di koy soppi yeesalaat am yeneen doxalin yu ñu soppi euh, ngir rek gën a mën a dëgëralaat nag euh, li nga xam ne mooy seen nekkin ci géew politique gi ñu wax ci leneen Sud Quotidien moom it bindaat xëyaat ak ñun ci li nga xam ne mooy assemblée nationale waaye nu ñu koy waxee waxee mooy nee na l' assemblée nationale dafa wax déedéet Diomaye fay maanaam Diomaye lu mu bëggoon assemblée nationale bi dañ lànk ne ko loolu xam ne nag mooy majorité bi daal ñoom euh, dañu daal ci ànd teg ci itam nag ne ni ki tey jile euh, dinañ indi li nga xam ne mooy motion de censure euh, boo xam ne ngir ñu màbbal nguuru ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ak i ministre am ñu wax ci leneen l'observateur moom it xëy bindu lu am solo ci xarxanam waaye ba tey daal li ci ëpp solo dañ dellusiwaat ci pencum ndawi réew ma ginnaaw pëccoxoo bi fa am démb coow leek ya ca rek daal di aju yëpp daal dinañu xam ne daal ne nguur gi lànkal nañ leen seen bëgg-bëgg teg ci itam nag yu bëri yoo xam wax foofee jëfandikoo ci diirub juróomi at euh, ku ci mel ni Farba Ngom moom nag lu mu daal di xamle ne euh, boo ko xaymaa ci juróomi at dëgg la waaye nag boo xoolee itam lu ñuy jox euh, kii di njiiti réew mi boo ko xaymaa ci juróomi at dina toll ci téeméeri milliards ak lu teg kon nag nee na bu ñu ci boole woon loolu yëpp mën nañu koo daal di bañ a jàllale teg ci kii di Pape Djibril Fall tamit yëkkati ay kàddu jëmale ko ci nga xam ne mooy Bassirou jomay fay di ko ñaax ne kon na bañ a def lu yées lu ay naataangoom daal di def ginnaaw ñoo li nga xam ne mooy ba tey euh, ci pencum ndawi réew mi ci la yéenekaay yëpp daal di xëyee tey euh, mu ñuy xamal ne euh, Benno Bokk Yaakaar bloqué jomoy euh, fay maanaam li Diomaye bëggoon dañ ko daal di euh, gàntal euh, teg ci itam nag yi tax ñu gantal ko Macky Sall moom ñu koy waxee rek di jour Benno Bokk Yaakaar ci tënk mag Macky dafa bëgg rek ñu daal di suul Benno Bokk Yaakaar daal di nag ngénte beneen tour bu yees yeesalaat li nga xam ne mooy ànd bu mu doon ànd ak way politique mi teg ci itam ñu gën a deferu ci géopolitique gi ngir nag waajal du ñàkk bu ñu tasee National Amadou euh, ñu mën cee daal di ñoom it bokk.